bon sama xalaat laa wax bu ko neexee Barthélémy Dias mu ni man euh, li ma gëm du ma ko dindi d'un yota mais depuis 2011 ou 2017 ak jusqu'à présent il y a des années. Hmm. en plus il il est en train de devenir quelqu'un d'autre boo xamante ne war naa mën a dépasser boppam ay yu bare bare bare bare hmm. li wax naan bon ci olof sukk du yóbbu say oom c'est-à-dire dafa am benn somme boo xamante ne comme moom mën na ci sukkandiku que ni. Euh, tribunal atte ko ne ko 2 ans dont 6 mois ferme ak plus 25 millions d'amende bu dem cour d'appel mu confirmer ko su hmm. demee cassation fenen mu confirmer ko hmm. que mu appliquer ko parce que amul dara lu mu koy yàqal ci li nga xamanteni ci aveniram wala ci doxinu politique wala dara c'est-à-dire fay japp ni hmm. loi bi nekk na fi pour def lu ko neex def na lu ko neex pour mu bañ ay pour ndax tay ji su dee defu ko mu commencé yëngal fauteuil bi mu nekk wala ñu commencé ko jël ci comme ni ko Sarr waxee sànq ci contrainte par corps yóbbu ko day jur benen conséquence plus néfaste que moom mu joxe 25 millions rek mu jeex kon dafa am lo xamanteni yeen say dang koy bo égué ci niveau bobu dang nga koy jommale sa bop ta baye mu jàll baye mu jàll nak du ragal du dara mais c'est-à-dire pour éviter ay polémique yu bari di éviter ay situation yo xamanteni ne da ngay dem ba nga xamanteni parce que bu len fàtte ni Barthélémy Dias à Dakar biñ koy fal waxon nañ ko au moins que mu wagn agressivité mu nek jéem nek un homme d'état nek homme d'état du question jang du question kii mais c' est à dire gestes ak façon. de faire sax mais homme d' état que dëkk tamit à dire Barth avec sa méthode dont euh, bu muy démé manam pouvoir bi dango baye xel si lu non xam nga lutax dafa wa xam nga changer attitude changer le fusil d'épaule dañ koo bind. Hmm. am nga droit nek xalé di xeex di saga hmm. mais so démé ba majeur da ngay respecté xam nga hmm. dam lay wax benn affaire yeen saa nga dem ci débat nit ki di wax di wax lu ko neex nga mën ko yuuxu nga bàyyi ko mu wax ba pare nga wax leneen nekul ragal mais utiliser une autre voie là. ok Mon tey jii dem na ba toll fo xamanteni maire de Dakar la maire de Dakar amul lu ko président bëree lu mu ko ëppalee. Mm. c'est-à-dire maire francophone la maire capitale la. Mm. mu bolé ko nekk député. amna yo xamanteni ay xeex ak jàppante pour man warna am dépassement bob donte am na ay mm. ay garde ko affaire lan moko waral mais war nañ ko mën a teg lu yoon sax Barthélémy dia nangou ko pour que ñiko votel à Dakar xamni kat ki ñu am espoir porté ko que nek na nit ko xamanteni dotu nek netu ay parce que Barthélémy Diaz bim gagné élection locale ba nek maire Dakar il aspire à être président. Hmm. Wa mi ci ban anam lay nekkee président Da fay ni continuer di nek nitu ay ba président jot wala da fa wara changer de statut pour wane ne moom mentalité magna. Lol tamit dañ ko ciy bok ci lo xamante ne dañ koy sor. Amna na solo bu baax a baax euh, aussi le cas aussi d'Adji Sarr Sonko mhm. euh, yone